iman bikum jàq jàq nag mi ngi door di jot dëgg-dëgg jàq jot na ndax coronavirus bi fi mu toll nii dal na fukki doomu aadama ak juróom-ñeenti ci réewum Sénégal allah turbine yéene kaay moo ñu ko xamal démb rek laa leen wax fukki doomu aadama ak benn moo moodu moodu ba wàll na leen ko ba tax laas yéene kaay na jaax la njàqare fi mu toll nii moo dugg ci sénégalais yi ndax jàngoro ji law gi muy law fa garaaw fa gaaw fa yéeme enquête yéene kaay ne danger national fukki doomu aadama ak juróom ñeent ah yëf yaa ngi yokku de te ñoom ñëpp nag moodu moodu ba dëkk Touba bàyyeekoon Italie moo leen ko wàll ah yow seet tal xam nga juróom-ñaar fukk ak benn la ñu waxoon ne jëflante nañoo moom fukk ak benn ya wala na leen ko source a yéen a kaay nekkoon nag njiit réew mi Macky Sall fi mu toll nii amatoo pexe far force fara force doole mbaam fa ngaa war a tere mboolem ndaje diine yi am Sénégal lu ko mooy jàngoro ji fay gën a yokk di wàllante arrêtel yëf yi le quotidien yéen a kaay na ko xaj na nga mën ci dara daaka bu Medina Gunaas fommuñ ko ba léegi dana xam naka noona kasu rajab gi fommuñ ko dana xam kuréel gu yor wàllu wér gi yaramu àdduna bi OMS ne hee Sénégal yéen a ngi fooyee xalu safara jàngoro ji du lu ñuy foye def leen ni seen moroom réew yi def jël leen matuwaay yi baax na gis nga bu ngeen nekkee fii di caaxaan ba jàngoro ji law da ngeen ko réccu de libération moo ñu ko xamal enquête yéen a kaay OMS loolu muy wax noonu fa mel ne rek dugg ci bopp kilifay réewum Sénégal ndax xew-xew diine yi ba léegi ñu ngi bàyyi muy xam te fi mu toll ñun Sénégal presque Afrique ñoo ëppale corona bi xanaa Algérie ñoom da ñaar fukki nit ak ñeent ñoo fa am jàngoro ji ak Égypte juróom benn fukki nit ak ñeent le quotidien yéen a kaay ne li danger total la xalifa général des mourides nag Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moom na dogal tere na mbooleem ziyaara ñu doon xamal ca dëkk bu sell ba wala dem ca ñoom di xamal ay ziyaara déedéet nee na na dakk na daayira yi toog ci seen kër yi déglu ko yéene bi na sëriñ Abdou Karim Mbàkke borom makaarimal axlaaqi moom it nee na bu ko benn daayira dem di ko ziyaare ji doy na sëkk tëj na buntam ya moo gën a wóor di ndax mën nañoo ñëw ziyaara si la jox la loxo sukk fekk andi nañ jàngoro loolu du baax di ba tax Maodo Malick Mbaye bokk ci ñuy jàppale njiit réew Macky Sall ne kon nag fi mu toll nii kilifa diine yi neen jël yëpp moo war a jël dogal bi comme ni mu ko maratu 8 mars bi ak yeneen vox populi na ko en tout bu Mbàkke moom fa bëgg a tëj mboolem école yooy xale yi jànge turbine yéen na ko màkkatal mu karama Arabie Saoudite ajug màkka ren c'est fini bind nañ leetar Sénégal na ko bu kenn encaissé xaalis wala ngay bind nit pour mu dem màkka ndax màkka ren jii bu kenn xalaat mu am umra moom dañ koo jëlale te ñu xasoon encaissé xaalis su yeboo nañ delloo source ay yéen na ko dalwaayu ba nekk Espagne déet nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñu ja mooy ne assemblée nasonal ñoom it dakkal nañu député génn dem bitim réew jeex na tere nañ tamit ku fa dem na yooyu yaay yaa ngay wis di jeeg a yow settantal député Seydou Diouf nee na Macky moo ci des na tere ndaje diina yi dajale mbooloo mu bari la l'observateur na ko Youssou Ndour woykat door na opération daan corona ndimbalam nak ci wàllu xaalis dana ko jox jëwriñ ju ñu dénk wàllu wi ni mel ni ki tey Le Soleil yéen a na dëkk bu sell ba Touba nga xam ne jàngoro ja fi mu toll nii ma nga fa tasaaroo fukki doomu aadama ak juróom-ñaar yim dal Sénégal yépp foofu lañ dëkk ndax Moodu Moodu baa ko fa dugal léegi nag dañoo bëgg Touba ci boppam ñu xamal fa ab centre na gis nga Moodu Moodu bi waxuma la wàll na waa këram waaye ba mu demee hôpital ba docteur ya ko jàngoro ji ay loolu de la ñuy wax na xay du yem ci bopp borom 24 heures yéen a kaay dëggal ko ndax ñi nga xam ne dañ leen doon yónnee xaalis bitim réew moodu moodu yi fi mu toll ni yónnee tuñ leen ah liggéeyuñ di bala nga naan naam ne fa nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne sénégalais yu bëri fa ñoo jàpp ne jàngoro ji daal korona yàlla baax na ñun duñu dal te xamuñ na yàlla yàlla bay sa tool ñu ne déetawaay vox populi na bëri na ay sénégalais yoo xam ne seen gëm-gëm moo leen nar a sànk ayaw ñuy wax naan kilifa yu baax yi tëdd ci réew mi ak suñ sëriñ si mën nañ lépp dëgg la naam mën nañoo ñaan xëcc taalibe yi jëmal leen ci yàlla waaye nag bu nattu ñëwee jàngoro ñëw ngay sabablu lu la ca mucciloo waaye toog fee naan ñaan ak yàlla nii suñ si nii kii naa bu dee loolu nga foog demal ca moodu moodu ba fa tëdd nga jox ko loxo wala ku jàngoro ji dal demal nga jëflanteeg moom toog ca wetam te naan yàlla yàlla fa ngay feebar su te boo moytu doxee fa dee yéene kaay na loolu yëpp nag a wax ngay ñaam may laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne Guy Marius Sagna janoona ak taskatu xibaar yi ni ki démb nee na lam jàppoon nag ŋànkoon ko tey du ko yabli fay continuer xeex bi bu laajee sax mu doxaat doxu ñaxtu ca buntu pale ba mu defaat ko fas yéene na ñàkkante ak Macky ba du fi am ñetteelu mandat nee na nag kaso gam génn moom sàkkuwut ko de déedéet tàggat yaram stade yéene kaay moo ñu xamal ne waa kaaf ñu yor footballu Afrique dakkal nañ jogante Sénégal ak Guinée ak jogante yu bari ndax moytu corona bi wallaate mbay ñang nee na man musuma bañ équipe nationale gars yi fañ may sosal ki kenn sosalut nag ndax moo wax waxal boppam mooy Moustapha Gueye bu Fass aya yow seetal nee na opération jóg wër ndombo Aliou Sarr ak waa CNG bi kaj ji leen football dàq ca biti loolu laa bëgg man Tafa Gueye te maa ngi ci ndax ñii duñu yàq làmb ji moomuñu ko am na problème nañ bàyyi ñeneen ñëw kàddam yaa ngi ci sunu làmb yéene kaay yéene kaay bi di observateur xëy dalal yaayu Dieynaba Baldé bi ñu wax ne bi Mamadou Diop Iseg ëmbal a yow seetal yaayam nee na Diop Iseg fama bett musumaa yaakaar ne dana tëddee sama doom ndax bi mu ñëwee di ko jël Kolda waxu kilifa la wax seen xale bi fa mën a woy am jàppale na seen xel dal dama koo def ni sama doom ñu wóolu ko jox ko ko ndekete yoo bi muy am fukki at ak juróom la commencé di ko tëddee foog nga ne loolu jàmm la bett na ma de baayu jay na ba balde moom bi mu yégee na fa ñoo tëdde doomam ba mu wan lor moom fa la doxee moom muuma tànk ya bañ mu mel ni rek ku jommi waa ma ne addunaa ngi noonu de loo foogul rek mooy xam ko ci bar ma ne na jigéen soppal te bul wóolu waaye góoru tey tamit bëri na ci ñoo xam ne xamal yaakaar